jusqu'à présent bi may wax ak yow nii les corps de euh, Tabara Samba Djibril Ba ñooñu ñëpp seen corps yi tey jii Sénégal mënu ko jot te loolu ci convention yi da nga war a informer non seulement autorité dëkk boobu mm-hmm. ba pare boo fàttee boo fàttee nga daal di delloo la nga xam ni moom moo di badi bi maanaam moo di corps bi jusqu'à présent suñu kooru seen njaboot Tabara Samba boobu ba tey ñu ngi ñu ngi laaj si corps ga mais mënuñu si jot si jot te loolu du yoon Sénégal gis loolu Macky Sall bi mu voyage à Afrique du Sud doon wax si lay wax ni euh, crise bi am bi Sénat bi kenn du ko def automatiquement l'ambassadeur de la Gambie basé à Dakar koku na ñëw répondre à 10 heures euh, son premier ministre Abdoumbaye, Mbaye kooku di jël décision mais qu'est-ce qui s'est passé après hmm. après il y a le sommet des Nations Unies ici aux États-Unis à New York hmm. Aïssatou Ndiaye dit vice président Gambie. Mm. ñëw rencontré Macky Sall. Mm. Aïssatou ay Seydi bi mu rencontré Macky Sall ba pare mu am interview ak benn gambien. Mm. journaliste gambien bi di wax affaire euh, waxtaanam ak euh, Macky Sall dégg na ne tas na ak Macky Sall te aussi que ni ndigam wax nañu mbirum ñooñu ñu rey. mu ni ko waa mu ni ko coow li moo bare rek ñu ni ko waa Macky Sall sax dafa meroon ndax waxoon na ay yëkkati woon na ay kàddu yu dëgg mu ni waa xam nga loolu politicien moom moo koy wax. waaye Macky Sall bi ma hmm. problème. vice président Gambia wax ah. non Macky Sall attends lii lii pas lii baaba dafa graw parce que lii il faut nga ñëwaat ci parce que man man comprendre je Macky Sall moom moo ne gis si problème. et je j'ai hein, j'ai l'enregistrement. Hmm. où Ndiaye hmm. vice président Gambia wax ko. ci enregistrement j'ai ouvertement que ni Macky Sall moo ni que loolu amul ben problème waxu politique la won rek euh, ndax coow li bare won na nangam nangam man en personne mhm. le soir le président sénégalais donne rencontrer les Sénégalais basés à New York à Harlem mhm. j'ai rencontré euh, celui qui était son ministre son conseil en communication sa euh, porte-parole Abou Abel Thiam uh-huh.

taxaw ñu daal di wax li ngeen koy tuddee def la déclaration diplomatique mm. waaye ñun ñaar bu ñu tëjoo ci néeg keneen nekk fa ñu war a waxante dëgg war a waxante ci intérêt suñu ay dëkk man yaakaar naa ne foofu dootul déclaration diplomatique mm-hmm. je ne comprends plus lan mooy déclaration diplomatique mm-hmm. bon c'est ki la ko wax du kenn ku du Abou Abel Thiam et s'il se rappelle ni nga defee woon ci benn waxtaan bi ni nga amee woon ci benn salle bu nekk recevoir euh, euh, euh, le président sénégalais yi nekk donc donc recevoir et le président était en compagnie de Ousmane Tanor Dieng donc oh.